xam am nga droit wax say kàddu teeloo ko. Mm-hmm. loolu la fa jot a def. mais ñun chaque dimanche dañu ñu budee seet benn kër. léegi nag def 500 500. du la tëri kenn teggi muy vingt xoma vingt quatre mille cinq cent. léegi ah, su ne cinq mille cinq mille. bu weer dee si cinq cent. ba yee dépasse suñu fond de caisse. cent mille amoon. Mm-hmm. boo demee

nekul un vil mot dañ koy wax rek mais duñ ko tax formation yu bari ñu def gis ñu ndax dañuy formation mhm. mais li ñu sax formation mhm. mooy li di accompagner ba nga formation bi ñu leen défaral ah. yeen di ngeen dem bu mën cee liggéey bu docteur Diagne ah, waaw salaam ñu ngi

préoccupation askan wi préoccupation ñi nga xamante ni tey jii bu ñu yàlla yóbbu ba ci municipalité bi ñooñu la ñuy servir nit nag boo koy servir da koy laaj yow nan nga bëggee ma servir leen mooy la nii laa ko bëggee yow nga doxalee ko noonu donc tey loolu moo loolu moo nekkoon suñu activité bi ñuy def mu tombee nag yaa ngi wax suñu déplacement bi ñu def ci zone bi xëy na dafa tombe ndax zone bi dafa dañ leen prévoir oon équiper leen équipement boobu ñu leen bëgg ñu leen waroon a def nag tey mu tombeek rek ñu nekk ci benn activité ñu profité aussi dagg activité bi dem jox leen blouson yi nga xamante ni moom lañ leen confectionné woon yàgg na doog a ñëwaat continué waat ci lu loolu nag su ngeen ko gisee sànq maa ngi koy wax ci bi ñu fa defoon ci stade bi mooy wane ni ñun dañoo jàpp ni secteur boo jël ñëpp secteur bi dañ leen war a ci li ñuy def parce que tey ji chaque fois dañ naan. Euh, gestion participative et inclusive mais gestion participative et inclusive boobu il faut une fait éducation dafa war a une éducation inclusive mais sport aussi inclusion il faut faire a feeñ moo comme dans le jàppale si déjà euh, Walum euh, boîte à pharmacie voulez nous soutenir aussi nous ñu zone bi nga xamanteni ne moom mooy organise tamit dafay baax nga japp len loolu moo indi tay équipement bobu ñu leen équipé. D'accord. accord euh, équipe bi nga andal gis nañ ni équipe dynamique la par contre est ce que le message de Pastef en ce moment mi ngi réellement à Khombole. bien sûr bien sûr message Pastef mi ngi jàll ndax Pastef ñun liñ construire ñu tëggee Pastef.

de citoyens conscients des enjeux de l'heure masse boobu nag ci la ñuy nekk nii effectivement ñu ngi gis adhésion bi ñu ngi ciy kontaan mais yaakaar ne suñu continuer nii te masse critique bobu ñu soxla dañ ko am ñi ngi ci yoon bi ñu ci réewuñu ci fulla lañ ci andal ak fayda ñi ngi koy waxal tamit ñi ngi gis ci ñun euh fulla bobu ñi ngi gis ci ñun fayda ñi ngi gis ci ñun passif bobu te ñi ngi ci and ak ñoom. wa koñ bi nee nañ gàcce ngalaama yow lan nga leen di wax non man remercier parce que nous ñi nga xam nous dañuy dox plus souvent mais ce qui waral de c'est am activités yo c'est très prenant kenn nous connaît les activités ci activité 24 heures mu war ci boole nag dox doxu mbokk mu war ci boole wax wax vision passif mu war ci boole waxtaan ak askan wi ba ñu li ñu leen nammal li ñu napp ci xombol mën leen ko wax donc nag loolu euh, activité yi ñu yi ma wax ni ci la ñu nekk moo tax xay na niñ bëggoon mu gaawee ñu teeloon koo defee noonu gënuñu ko teel a def noonu waaye nag li ñu sentir te ñu kontaan ci mooy jóg nañ mais gis nañu nit ñi ñu bëri ñu ngi doon xaar parce que xam nañ ne Pastef bi dugg ci caaxaan xam nañ ne coalition bi ñu bokk ak leader yi si nekk kenn xamewu leen ci ay caaxaan kenn xamewu leen ci wax lii tey suba nga wax leneen kenn xamewu leen ci digét loo xamante ni leer na leen ni mënuñu baa def kenn xamewu leen aussi ci laal dërëm boo xamante ne parce que li nga xam. jërëjëf docteur Diagne.